yu géeju ci géej géeji mag yi boo xam ci wàllu woy lépp péete ci suñu làkki réew tey nag ñu ñëw fii ci Tanaaf dinañ leen wan euh, li nga xam ni mooy aaday Casamance dalal vraiment ci nga xam ni mooy waroomi xam-xam géej gi nga xam ni ñu ngi nekk ci Casamance euh, dara fi amal keppaaru xalima keppaaru xalima nag tey di ngeen fi gis macha allah lépp lu ngeen xam ni aada ak cosaan ndax ci keppaar gi lañ toog ñu leen fi dalal ci ànd ak seen xarit Lamine Baye ci la Vallée Info kon nag ñu déglu seetaan keppaaru xalima spécial en Casamance Tanaaf